asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ñu am mbégte ñëw ak yéen ci biir émission ak professeur Cheikh Oumar mu nekk personnalité boo xam ne tey bu ñuy wax ci moom jarul sax ñu koy présenté ci lu bëri ndax tey fexe na ba Sénégal xam nañu ko ndax posture yi nga xam ne da koy ak position yi nga xam ne yi claire sans ambiguïté yi nga xam ne da koy jël ci ay sujets yoo xam ne dafay dem ci mbirum Sénégal ci mbirum askanu Sénégal mi nga xam ne décidé na en tout cas di jël ci temps di ko xeexal ci ay sujets yu bëree bëri bari surtout dans le cadre de la défense de la préservation des valeurs yi nga xam ne moom la suñu askan yellool euh, professeur ñoo ngi lay nuyu di la gërëm ci facilité bi nga xam ne am nañu ko ci buñ la wootee woowee pour nga mën a ñëw fii ci Sénégal ñu amal entretien bi ñu bàyyi la nga nuyoo mbokku internetu Sénégal ah jërëjëf euh, sëñ Tidiane mbégte la yàlla ñëw uysi la ci woote gi euh, mbégte ñëwaat Sénégal même bu dee gëjoon naa fi fekk fi yokk ak ndollent di ñaanal kër gi yàlla dolli fi barke yàlla dolli fi xéewal ak tawfiix donc di nuyu mbokk internet yi ñuy setaan ci biir réew ci bitim réew di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix nag incha allah ba la ñu fi waxtaanee mu nekk njëriñ jërëjëf. d'accord ñu ràññee la ci audace yi nga xam ne da nga koy jël ci lan la yar la wala choix la bi nga xam ne yaa ko inclure sa bopp. waaw euh, sëñ damay wax ne loolu moom peut-être chance laa am euh, ci éducation bi ma jot ndax euh, dama am chance su am éducation d'une maman très brave sama yaay dafa dafa rigoureuse et dafa dëggu ku dëggu la donc ci dëggu boobu la ñu yaree. et en même temps suñ la nàmpatalee ci diine da am une double éducation bi nga xam ne euh, du nekk en contradiction maanaam li ma li may yaree sama biir kër ba ma jàngee diine loolu la ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal xulil xaq walaw kaana murran maanaam islam moom daf ñu intimer un ordre de dire la vérité même bu dee dañuy dee même bu dee dañuy sànku maanaam dëgg suufeel la sax moo la war a gënal lu dul dëgg di la kawel donc euh, un musulman en principe c'est quelqu'un bi nga xam ba mu comprendre allahu mooy alxaq yàlla mooy dëgg rek donc il sera intransigeant et intraitable sur la vérité donc euh, peut loolu mooy chance yu ma am ci éducation xam naa ni euh, du njàmbaarte ndax dafa am li nga xam ne yàlla da koy defal rek xéewal la da koy sante borom bi subhaanahu wa taala donc. Sénégal mu mel ni Sénégal am position yu mel noonu. dafay jafe souvent mën na la andil ay tolof tolof euh, xam nañ ne le Sénégal c'est un pays communautariste c'est un pays régionaliste parfois même si on ne veut pas le dire ainsi euh, mbirum waaso même bu ñu ko waxul ci kaw am na fii parce que ku wax ne man lii laa Ibadu Rahman laa fi ma bokk kenn du ko laal ñi naan man murid laa li ma doon ak ñi nga xam ne ñoom laa yaakaar kenn du leen laal ñi naan ay tijaan lañu ainsi de suite parfois dina am yu dafay laaj ku mën a jóg ci kaw wax leen non lii c'est pas bien. Mhm. nga am posture bu mel noonu ci biir dëkk bi nga xam ne Sénégal la. Mhm. est-ce que du la sonal parfois ci sa nekkin ak askanu Sénégal. waaw euh, tu as totalement raison li nga wax dëgg la xam nga quand dans une société la majorité des personnes sont euh, dañuy dañuy bëri tappale maanaam dañuy jubadi dañuy bëgg nekk ci ay ci ay njuut njàcc boo fa nekkee bëgg taxaw di wax dëgg tu vas tu vas déranger et tu seras l'homme à abattre en réalité donc euh, quand on suñu demee nag ba dugg ci benn dynamique dañun kat on a opté euh, lii lii laa bëgg mu nekk sama yoon dama bëgg yàlla gërëm ma dama bëgg euh, dox ci tànku mag yooyu nga xam ne ñoom laay vénérer jàpp nii ñooy samay modèle tànk yi ñu doon dox te tànk yooyu ñàkkul ni am nañu ay loraange maanaam tous ceux qui ont choisi de de marché dans le chemin du vrai mais ont eu des et ils ont été combattus par leurs semblables donc loolu moom c'est une conscience bu nekk war a am suy dox ci loolu ñun on a fait les avantages coûts euh, coûts et conséquences mais on a opté euh, ngërëmal yàlla gënal ñu euh, cette fausse paix là maanaam dama jàpp ni y benn afia nationale bi nga xam ne benn hypocrisie généralisée bu ñu bëgg a loo waa Sénégal yëpp c' est vrai que certaines personnes disent non et loolu ça me fait plaisir de que am na ay benn benn yu commencé bañ mais à terme incha allah dëkk bi on va restaurer ni si leen demaat ba sa gis ni dëgg mooy moo njëkk te moo mujj et que cette complaisance là wala cette compromission là bu nit yi nekk mais nekk en accord avec soi-même surtout en paix intérieure entre yow ak sa borom moo gën même bu leen lay saaga. même bu dee dañ lay xas même bu dee dañ lay ŋàññ peut-être le temps euh, le temps sera l'arbitre le bon arbitre avec le temps les gens les gens comprendront incha allah. Euh, Sénégal tamit euh, gis nañu euh, parfois nga jël ay position mu am ñu mu arrangé ñi jug ne foofu nga bokk. ñu toog ay quelque temps nga jëlaat ay posture yoo xam ne dafay ŋaññi ñooñu. ñu naan mais ki farul fenn. Mhm. est-ce que position bi nga xam ne dualité la. Mhm. souvent dafay faral di feeñ ci li ngay def tamit euh, mhm. ne complique pas la tâche. par rapport ak euh, posture yi ngay jël. Euh, plus souvent les gens xamuñu lan mooy dëgg. maanaam ñoom dañuy jaawaatle dëgg ak ay nit dafa am benn kilifa gu mag gu ñuy wax Sidna Ali karamallahu wajhahu le compagnon gendre et cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été d'ailleurs le quatrième xalif dafa wax naan dafa wax ne taarif xaq wa taarif ahlahu mu ne laa yurafu lxaq bi rijal innama yurafu rijal bil xaq mu ne da dafa am une urgence de connaître et de comprendre da xam lan mooy dëgg ba pare xam lan mooy ñoñ dëgg yi mu ne dëgg euh, kenn du ko xam ci ay nit waaye nit yi ñu ngi leen xamee ci dëgg donc en fait quand on est du côté de la vérité mën nga tey nga ànd ak kii parce que dafa nekk euh, du côté de la vérité moo tax nga ànd ak moom suba bu safaanoo dëgg mais da ngay génn ne ko carrément tu as tout faux wala nekkoo ci yoon loolu c' est pas que tu es versatile c' est pas que tu instable c' pas que da ngay tàppale au contraire tu du côté de la vérité et la vérité mag yi sax dañuy wax ni puso la mën na feeñ fu ne te fu mu feeñ ñu koy nangu surtout nag en dans des dans des questions nga xam ne ñoo gën a sensible fii au Sénégal fii au Sénégal on a essayé de consacrer des personnes en divinité en en quelque sorte dañoo jël ay nit sax léegi def leen yàlla. quand on parle d'islam ñu dem ba waxal waxal waxal ko seen yàlla la. quand on parle d'islam d'islam au Sénégal aujourd'hui dafa tumuranke ndax aujourd'hui il y un certain pouvoir que des hommes religieux euh, ont dans ce pays. Euh, du fait simplement de leur situation ak euh, nu ñuy dundalee euh, cette hégémonie là en fait maanaam waxatuñu sax diine et nit yooyu dañ leen mujjee màggal ba nga xam ne nit yi ñoo jàpp ne mun ñoo juum te nit yooyu ay nit kese lañu weesuñu nit xam nga dama ne le drame au Sénégal mooy Sénégal dëkk bi nga xam ne l'islam mu ngi fi dugg au neuvième siècle maanaam avant ay huit cent quatre-vingt huit ci suñu ère bi islaam dugg na Sénégal commencé di yaatu di dox nekk gu ñoon majorité booru année mille et quelques maanaam mille quarante deux wala mille quarante on a eu un premier roi musulman au Sénégal ki nga xam ne buur la ku ñuy wax War Jaabi Njaay était était roi il musulman donc fii l'islam def na fi lu millénaire mais quand on parle d'islam dans ce pays day l'islam il y a deux siècles trois siècles avec l'avènement des tariqa le islam waaw te alors que c'est pas du tout le cas dangay xool même l'entreprise même de l'histoire générale li ko yàq ce sont des confrères des lignes confrériques kenn ku nekk jàpp na ni histoire bi histoire am la maamam mooy le super héros de ce pays yeneen maam yëpp amuñu solo quand on a cette vision là euh, cette vision réductrice même de l'islam et de l'histoire du Sénégal da ngay comprendre ne dëkk bii nii dëkk bu metti dundee la waaye dëkk bu neex a deewee la ku fi dee rek baax loolu ku ko teel a comprendre rek wax dëgg yàlla du la sonal di nga jéem a wax li ngay wax te yàlla rek tax l'essentiel mooy dañuy jéem toujours di wax lu am njëriñ lu mën a njëriñ askan bi te bu mu ànd ak bakkan nañ ko wax te yàlla rek tax waxuñu ko pour toroxal wala pour dénigrer wala pour sànq waaye il faut dans une chaque fois su problème amee il faut wax dëgg yàlla nag ñu taxaw wax dëgg te yàlla tax ndax yàlla fi ñu koy laaj suñu dee ñun ñëpp bu ñu dee yàlla ñu laaj ne mbir sàngam ba mu xewee sa dëkk ban taxawaay nga ci amoon bu doon da doon tappale wala nga doon def yëfu hypocrite bu dee xamoon nga par noppi yàlla na ci mbugal mbugalu yàlla boobu nag la ci gën a ragal ñun que euh, les les mauvaises langues ak tappale geeg ak euh, saay-saay yi nekk ci biir dëkk bi wax dëgg euh, tey dañu constaté njàngum islam bi ci boppam gaa am nañu xam ñi jàng ñi man mais bokkuñu ci famille religieuse yooyu xam ne moom la ñu tudd ci famille yu tarixa yi mais ci ñoom ci seen biir dans les familles religieuses nañ ko wax rek bëri na ci ñoo xam ne ñooy ci sol grand boubou mais luy alxuraan jànguñu ko bu baax mokkaluñu ko. et puis ça pose problème malheureusement. c'est la réalité xam nga fii Sénégal nag taalibe yi ëpp yi topp ay sëriñ topp ñu leen ci xam-xam. taalibe yi amuñu xam-xam xamuñu sax la mooy xam-xam mbiru fans club kese la dafa mel ni ay star la yu nekk ak seen ay fans donc lii moo am Sénégal. dañ leen di topp ci sant. kese kii sant bi la am léegi sax ku topp ne la diw seen sëriñ xoolal retaaram dafa rafet. wala teel sëñ xoolal faasam bi ni mu rafetee wala kii xoolal bi ak kaalam bi moo rafet c'est que Sénégal dañu topp sax léegi des choses esthétiques ak physique maanaam kon amuñu revendication spirituelle en fait may fàttali ne tarixa même jamono bu muy am bi commencé màgg dans le monde arabe et partout nit ki dafa woon am un besoin spirituel maanaam dafa woon soxla yàlla sentir ni am na lu ma manqué sama diggante ak sama borom. nit ki di la wax ci yàlla da ngay jooy. mu dem seeti xam ne gis na ni kii moo ma tane ci raw. mu examé ko gëstu ko di ko testé ba gis ni kii moom a gën a ragal yàlla moom ëpp xam-xam ci yàlla mu ñëw jaayante ak moom ne ko dama bëgg a ànd ak yow ngir yàlla pour nga dimbali ma lii moo nekkoon le cheminement entre un disciple ak son maître fii aujourd'hui euh, du besoin spirituel du ambition spirituelle du mbiru ragal yàlla au contraire jamono bii ngay gis jotaay bi ñu wax ne soi-disant yàlla moo ko lal ñu toog guddi ba fajar waxtaan yu yàlla waxtaan yu yonent bi mm-hmm. di wax ay bêtises ak ay sottises li ñuy wax yëpp déjà sax c'est des c'est des c'est des choses graves yi nga xam ne yii est-ce que sax du yëngal arche est que sax malaaka yàlla merul donc pour dire que fii moom diine wax dëgg yàlla daf fi tumuranke man damay fàttali ko rek. sëñ Cheikh la wax nag de mais Cheikh Ndiaye dafa wax loolu. ne fii Sénégal euh, ni mu mel ci wàllu aada ni mu fi mel ak diine aada dafa yëkkati diine ba ci kaw dur ko ci suuf. aujourd'hui man su may xool ñuy bëri ñuy wooyee kilifa diine. encore que man baat bu dama koy bañ sax man nanguwuma ni ñooñu ay kilifa diine lañ man Sénégal nanguwuma ne am na kilifa diine man dama jàpp ni diine ki benn kilifa la am. kilifa gi mooy borom bi subhaanahu wa moom moom kese moo war a am sañ-sañ naan def leen ñu def ne bàyyi leen ñu bàyyi si diineem gii ndax diine gi moo ko moom léegi nag diine googu nag comme benn kilifa la am ñun ñëpp dañuy maasandoo topp ci ginnaaw kilifa googu te kilifa googu kenn lañ joxo ko muy tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag coono mooy quand il y a aujourd'hui des turuq il y a des il Euh, am na si si confréries yooyu ñenn ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ils sont en harmonie et en adéquation ak diine ay nit yu baax lañu nit yu jub lañu nit yu am xam-xam lañu nit yu ragal yàlla lañu nit yu jàngale yàlla lañu waaye nit yooyu ñu si bëri gars yi neexuñu gars yi gars yi. est-ce que xam nga ne am na ay tamit ñu bokk ci ay famille am ay taalibe partout mais souvent dañuy def ay quête ay ay en tout cas ay. ay ay ay laaj xaalis. taalibe yi nga xam ne dañ koy imposer taalibe waaw loolu yàgg na dafa yàgg Sénégal xam nga moom. Euh, diine gi comme li mu wax léegi rek diine gi dafa am un business dans la religion euh, le business religieux tax na dafa créer sax léegi ay mafieux dans la religion ñi nga xam ne dañuy dundee diine bi waaye dundaluñu ko may fàttali toujours ne suñu mag yu baax yi fi newoon yi xam ne ñoom ñoo tax ñuy wax tey jii tarixa yi moo xam ñoom Cheikh Omar Foutiyou ñoom Seydi Hadji Malick ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ñoom Cheikh ay Niass ñoom ñëpp sans exception c'était des personnes yi nga xam ne un c'était de grands intellectuels yu jàng deux c'est-à-dire genre d'une probité morale euh, extraordinaire. suñ ci gis kenn ko pata. ay nit yi nga xam ne seen ay melokaan ils étaient ay nit yi nga xam ne si wàllu euh, euh, liggéey jariñu dañoo amoon seen ay revenu wekkuñu ko woon ci ay nit. amoon seen ay tool amoon seen ay gétt ils vivaient sain et halal maanaam wéeruñu woon seen dund ay nit jamono bii rek moo am ay fainéants yu jàpp ni ñoom nekk sëriñ métier la sëriñ c'est pas c'est pas un emploi du métier. sëriñ Sénégal la nekkee métier Sénégal léegi ngay gis ku taxaw ne la sëriñ laa mooy sama métier profession mu la sëriñ laa Sénégal léegi ngay gis ku taxaw ne la sëriñ laa te xamul dara jàngul jàngul Sénégal ga salaam fi mu ko wéer mooy ci ay yére la ak ay sant donc et loolu nag wax dëgg yàlla du doxal diine bi moo tax tamit dafa mel ni sooy xool suñu mag ñi ñoo fi liggéeyoon quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ba léegi yokkul ñi waroon a liggéeyal diine bi suñ ko liggéeyaloon bu baax a baax dañ ko doon liggéeyalee mun na am instant que nous serions à 100 pour cent de ça aussi euh, est-ce que du loolu moo dooleel euh, li nga xam ne mooy en tout cas les lobbies maçonniques homosexuels mën a implanté wu parce que man. du ma tudd tuur bi euh, dem naa fi ci benn avocat mos nañ toog ci biir bureau mu ne ma Cheikh. Mm. su ma la waxoon tey homosexualité bi ci kër yi mu bokk. kon séddumaaw jàkk sax boo motu doo fa dem julli da ngay jullee sa biir néeg euh, ce qui veut dire que donc am nañ fii implanté nañ fi am nañu fi doole toog nañu fi mm-hmm. ci loolu tamit ñu am homosexuel euh, franc-maçon yi mm-hmm. euh, parce que mosoon nga fi xaw ma yaa ko xoon xaw ma kenn woon na près de quarante ou soixante-dix pour cent des ministres du du de ce gouvernement là sont des homosexuels mm-hmm. ba man bindoon naa benn article ne soit le gouvernement démenti pour que képp koo xam ne am nga woy jur ci gouvernement bi sa xel feex mm-hmm. wala ministre bu nekk te nekk ci gouvernement mais nekkoo ko homosexuel nga gën a wax ne man de maa ngi nii mm-hmm. ministre la waaye du ma homosexuel mm-hmm. mu leer ci bopp nit ñi wala sax ñu porter plainte Cheikh Oumar pour won sénégalais yi ne bii amul moom andee preuve mais bu ba léegi kenn weddiwu la kenn démentiru la et puis waaw xam nga xam nga loolu c'est une réalité euh, du Sénégal soo ko euh, ba ñuy mujj ba ñuy njëkk jàpp fii ay góor jigéen Euh, pas njëkk sax mais su Wade en 2009 jàpp lañu fi ay góor jigéen doon mari bañ leen jàppee yaayu des pressions yoo xam ne mu ngi xewee woon depuis la France ah parce que conseil des ministres la ñu toog France jël décision ne noonu dañu war a bàyyi góor jigéen ñu jàpp donc lii c' extraordinaire je vais pas dire que ingérence que ça la mais c' est tellement grave maanaam en conseil des ministres le cas de quelques góor jigéen yu jàpp Sénégal c' a bàyyi ñooñu. donc euh, ñu bàyyi leen ba leen bàyyee dañ leen a gaaw a defal ay këyit génneen Sénégal c'est vrai que nag loolu sax indi na après un business de de l'immigration am ñu bëri sax ñuy dem di woote ne góor jigéen lañu pour gaaw am ay këyit mais góor jigéen yooyu ba leen defee këyit ba pare ba ñu toog ba seen xel daal dañoo ne ñoom ñi ëpp ñuy jëfanteel ay ministre lañu ñoom y a de très gros bonnets de l'État xam ne au au plus haut sommet de ñoom ñooy ñoom ñooy nekkandoo moo tax ñoom ku leen laal kenn leen tëj kaso et ce qu'ils ont ce soo xoolee avec le temps et euh, l'histoire démentiru ko euh, tellement que au plus haut sommet de l'État euh, débauche yu mel noonu moo fa nekk et lii c'est pas difficile à comprendre soo xoolee aujourd'hui nos hommes politiques majoritairement Euh, pas tout le monde nag il commence à y avoir un renouvellement de la classe politique il commence à, à, à avoir un renouveau de la politique au Sénégal mais euh, politicien Sénégal sénégalais yi loolu leen jàppee woon baat baat bi sax politicien c'est péjoratif nit la bi nga xam ne amul valeur faalewul dara du wax dëgg mën na tas yaakaar mën na la war mën na sàcc àllu mbooloo. la ah yu politicien la de. suñ ko waxee rek mooy xas saaga nañ la donc pour diir que rek kon. Euh, au niveau de notre état ndax dëgg yàlla dafa am ay mbiru yu bon yoo xam ne maanaam lu ñuy woowee mbon dafa sax ci biir Sénégal daf fi nekk aujourd'hui daf fi am doole doole bu bu fi am nag man jàpp naa ni bu ñu taxawul euh, jaamarloo ak ñoom. duñu mën a am gain de cause mais mbiru góor jigéen bi nga wax euh, avec les lobbies parce que ils sont intimement liés euh, la maçonnerie euh, bokk na ci ay ambition jéem a fexe ba doomu aadama ñi libéré ko de toute contrainte de toute croyance et de toute religion maanaam xeex diine yi ak xeex ngëm-ngëm yi seen ay seen ay mission la bokk. indépendance dañoo ne yàlla warul tabax àdduna warul ilif àdduna bi ñoom ñoo war a tabaxaat àdduna par rapport suñu bëgg-bëgg les maçons c'est ça qu'ils disent ñoom donc ñoom ils encouragent lépp li nga xam ne diine daf ko tere euh, l'homosexualité l'euthanasie euh, lépp zoofi lépp lépp li nga xam ne diine tere na ko dañoo jàpp ne ñoom diine kese warul nekk lu tere nit ki sa xel bu ko nangoo nga bëgg ko dañoo war a respecter liberté doomu aadama donc la la la li ñuy wax liberté de de conscience ak liberté de de de ñoom dañoo gëm loolu si doomu aadama donc. bu amul lu ko limité yi devient un animal donc. animal sax ko tane ndax alxuraan daf ñuy wax ne ulaayka kal an'aam bal hum adall mu ne am na ñi nga xam ne ñoom ak mala yi ñoo yem am na ñeen ñi nga sax mala yi ñoo leen gën donc nit am na fu muy toll moom moo suufee loppam Euh, par rapport ni ko yàlla teralee teddal ko màggal ko dafay am melokaan ak jëfin yoo xam dafay mujj dem ba wàcc euh, en deçà même euh, de la bestialité et loolu yàlla ci yàlla musal. Mm-hmm. tamit la société sénégalaise mu ngi bàyyi de de jour en jour les valeurs occidentales. ñu koy ñu parce que même dañ koy jaarale ci musique bi jaarale ko ci internet bi parce que tey difficilement ngay jënd téléphone te doo fa gis les couleur homosexuelles yi nga xam ne dañ koy dugal ci application Google par exemple noonu lañuy def donc comment est-ce que la popularité sénégalaise devrait résister face à cette euh, waaw c'est vrai qu'aujourd'hui il y une mondialisation des culture maanaam dafa mel ni civilisation yi ñoo nekk di xeex te loolu ku mel ni Samuel Huntington bindoon na ci di wax si the clash of civilisation di wax naan après que bu Fukuyama bindee la fin de l'histoire dafa ñëw bind la le choc des civilisations pour dire que les civilisations vont s'enchoquer et dans sa lecture moom du monde post euh, guerre froide il disait que la civilisation musulmane sera agressée comme la civilisation africaine il sera agressé de toutes parts ndax civilisation yi dañoo bëgg toog ba tey garde ay spécificité yi nga xam ne euh, ancestrale euh, traditionnelle et le monde fi mu nekk di dem nangoo nangootul ay spécificités parce que dañoo bëgg tabax un village planétaire un seul village pour le monde entier donc kon ces sociétés là seront agressées donc aujourd'hui mu am des formes de diplomatie sax yu bees la diplomatie culturelle est là euh, l'ouverture technologique qui embrasse le monde entier gi fii la mondialisation politique des états ngi fii donc lii yëpp c'est des événements yoo xam ne c'est vrai am na de aspects positifs yu moom am na yu am solo yu mu amal doomu aadama waaye dafay àndaale le bon comme le comme comme comme comme lu bon li et lu bon loolu nag pour man un état même su fekkee dafa décider ouvrir au monde war na mën a créer ay garde pour mën a préserver et sécuriser moom héritage am ak ndonom bi xam ne mu ngi ko jotee ci ay magam et c'est justement là où le Sénégal a failli ndax le Sénégal aujourd'hui euh, sooy euh, xool dans ses textes et dans la démarche de ceux qui dirigent aujourd'hui le Sénégal le Sénégal est inscrit dans le nouvel ordre mondial donc ñun amul lenn lu état Sénégal def pour sàmm ñu ak pour sàmmal suñu ay njaboot par rapport à cela il y a des pays qui qui qui ont opté de se défendre et de résister le Sénégal malheureusement n'en fait ma jàpp nag ni pour régler loolu il nous faut euh, parce que régler dara ci dëkk moom ñaari solution kese moo am euh, soit c'est du haut vers le mooy jéem a am euh, des hommes politiques très avertis conscients xam lan mooy xeex bi jug pour changer de paradigme parce que aujourd'hui c'est un problème paradigmatique et ce paradigme là il est d'ordre civilisationnel d'abord maa ngi fàttali ko ni Malraux doon wax naan le vingt et siècle soit religieux ou ne sera pas donc il y a paradigme religieux bi xam ne mënuñu ko ignorer dans ce siècle dans lequel nous sommes donc loolu vers le down la mooy dañoo jox xam ne am na vision bi am na courage bi am na mën-mën bi pour mu doxal ko wala boog mu nekk du bas vers le haut ça va prendre beaucoup plus de seen bopp. prise de conscience globale. di comprendre les enjeux. effectivement maanaam conscientisation boobu ak partage boobu askan ñoo koy def euh, dans dans le bas niveau di conscientiser si biir kër yi di jéem a occuper la place publique les médias yëpp si travailler pour jéem a yéegal loolu ba suñu dirigeants yi légiférer si jël si ay ndogal man jàpp naan Sénégal nag dañoo am ay ay jumtukaay yu am solo dañoo am héritage bu am am solo am ay histoire yu am solo yoo xam ne bu ñu sonnoon ci jàngal ko euh, askan wi mun na am du ñu xeeb li ñu am bay jéem a jéegaane euh, lu nekk ci bitim réew ndax euh, dafa am jamono bii nag sëñ Tidiane damay xool aujourd'hui la jeunesse sénégalaise majoritairement je vois une jeunesse bi nga xam ne dafa mel ni dafa yëgul sax ni am na ay ndaanaan maanaam ñun on dans la recherche de héros autre les gens cherchent des héros autre part. on ne parle que de Thomas Sankara. de grands héros. rarement ngay dégg les jeunes sénégalais se référer à Cheikh Anta Diop ou à ah d'autres alors que même même avant Cheikh Anta ñëw fekk fii ay nit yu yu pare ay nit yu pare yu taxaw donc dafa mel ni ñun xamuñu sax ñan ñoo nekkoon fii Sénégal. yàggoon def lu am solo parce que la lutte n'a jamais cessé des gens ont toujours tenu le flambeau mosul daanu. ay nit di sonn sacrifié wu nit yu bëri si ñoom l'histoire les a les a effacés pour bëgg gaay fàtte leen lii nag li muy njëkk andi comme conséquence mooy xam benn absence de fierté que tu sens que tu sens chez le Sénégalais et ça rejoint lu tax man la sànq le problème fondamental dans ce pays c'est l'homo-sénégalensis c'est le Sénégalais mooy le problème du tubaab bi du njiit yi du dara d'ailleurs xam nga la mooy dëggal li ngay wax nii man j'étais avec l'ambassadeur de de l'Israël dem na nee na le problème que l'Africain a c'est qu'il ne sait pas créer des mythes nee na pour un peuple pour qu'un peuple puisse grandir il a besoin de socle socle boobu noonu ay mythes la yoo xam ne parfois sax jar na sax ngeen inventé inventé ay mythes oui oui oh, il faut il faut rêver et faire rêver un peuple loolu nag ça ça donne benn différence nag qu'il y a entre un manager on a on a peu de managers fi en Afrique euh, même ay leaders on en a peu quelqu'un nag bu boolee un leader et un manager qui c'est une référence ndax euh, le leader c'est quelqu'un qui est dans une verticalité par rapport à son peuple c'est un grand chef ne dafay nañ dem topp ko parce que am na wóolute bu rëy rëy bu am diggante mook mbooloo gi ba kenn du wax un manager dans l'horizontalité il essaie d'impliquer tout le nekk à un même niveau d'information nañ dem ñëpp a yëgandoon dañoo a dem ndax ku nekk xam na fi ñu war a dem ñu war a demee ñun à la fois chaque fois ma ne dëkk bi am nañu ay njiit am nañu ay njiit mais amuñu ay kilifa et il nous faut travailler dans ndax dëkk soo amul loolu wax dëgg yàlla gëwmal mën mën na def lu extraordinaire euh, ci kaw suuf. li nga wax ne lu lu am solo la parce que quand on un peuple a besoin de de te modèle boobu noonu mais c'est le pouvoir qui doit aller créer à défaut de montrer ceux qui sont vrais. parce que bu ñuy dem ci suñu tali di ko tuddee ay tubaab. alors que am na fi ñoo xam ne peut-être c'est des gens du Fouladou c'est dans du Fouta c'est dans le c'est dans le Bawol le Jolof des gens yoo xam ne ils ont marqué leur époque ah loolu loolu loolu lu am am solo la Euh, euh, ñu nekk tamit euh, benn dëkk boo xam ne aujourd'hui il est difficile de faire le distinguo entre ki nga xam ne dafay woowee boppam activiste ak l'homme politique finalement gis nañ ne les activistes finissent par devenir des politiciens qui concourent au poste ensuite électoraliste ou poli voilà est-ce que loolu déjà ça ne ça ne crée pas un problème de dualité entre les activistes et les politiciens qui pratiquement font maintenant la même chose quoi waaw man dama bokk Euh, un activiste c'est quelqu'un bi nga xam ne mënul ñàq am féete ci wàllu politique donc un activiste est un politique tout comme euh, l'homme des partis politiques yi ce sont des acteurs politiques tout comme la société civile est un politique ndax quand parle de politique au sens euh, réel du terme mooy ñëpp ñi nga xam mbiru nu ñu yoree penc mi daf leen ñor lii ça les personne en rade kenn ku nekk am na ci taxawaay ak sañ-sañ euh, à des degrés différents bu tombelee nag aujourd'hui mu am benn vieillissement des partis politiques traditionnels parce que itam c'est une c'est un problème au Sénégal maanaam les grands partis yi xam ne ñoo marqué woon Sénégal majoritairement dee nañ majoritairement euh, PDS tas na PS tas na AFP AJP ADS on n'en parle plus la <laughs> ñëpp tas nañ ils ont créé des factions et beaucoup de mouvements yi xam ne euh, hommes politiques yu bëri yu nekkoon ci biir lii yaa a benn divorce sax qu'il entre le jeune actuel maanaam les la génération du gars yi naan Gen euh, Y waa Gen Y ak waa Gen Z maanaam les générations yi nga xam ne mooy xale 2000 yi xale yoo nga xam ne ñoom ñooy xale réseaux sociaux yi xale xale Facebook yi xale TikTok xale jamono bii nii dafa am benn divorce bu ngande bu am entre ñoom ak l'homme politique ancien instant ils ont d'autres attentes ils écoutent d'autres personnes euh, même canal d'information ils s'informent pas par rapport à des traits traditionnels maanaam ils ont benn ligne ah oui ils ont benn ligne de vie bi nga xam ne dafa uteeg le Sénégalais ancien la preuve ñun il y a vingt ans il y a des pratiques et des faits yoo xam ne c'était inimaginable au Sénégal fii ay affaire ay problème de meurtre ay braquage rek xamuñu ko woon on l'avait jamais eu au Sénégal léegi c'est devenu monnaie courante monnaie courante léegi da ngay gis léegi ne am na braquage nangam am et cetera euh, des sextapes à ne plus on a une société et que nos sociologues n'ont pas pris assez de temps pour pour pour gëstu ko analyser ko. waaw on a on a des perroquets. je ne parle plus de perroquets. qui nous répètent des théories occidentales et des études que les Occidentaux ont fait mais des études sérieuses fii rares sont des gens qui sont dans ces études là ñu si bëri nag ils sont sur le terrain moo tax kenn xamu leen euh, ils n'ont pas pris la peine de ñëw pour leeral yaa naa nag mais ils sont pas nombreux donc kon il y a un renouvellement obligatoire de la classe politique aujourd'hui les partis sax commencent à disparaître on parle beaucoup plus léegi de parce que léegi la la la loi kenn ko amul parti amul dara su dem élection yëpp mën ci participer il peut participer aussi bien législative locale présidentielle donc aujourd'hui jaar ci parti ce n'est plus un must donc kon y un changement bu am sur même l'échiquier politique national euh, au-delà de ça mais les acteurs aujourd'hui da ngay xool quelqu'un s'active mën naa xool ku mel ni ñoom ay ñoom Guy Marius Sagna ñoom ñoom Abdou Karim Xurum Xaq ñi nga xam ne nii man vraiment man ce sont mes activistes man ñii ñii dem leen porter sama biir xol mais ñii euh, stature bi ñu nekk ak niveau de conscience bi ñu nekk dañoo raw la majorité de la classe politique qui est bokk bëri nañu fi ay hommes politiques yoo xam ne mais ils sont pas au même niveau d'information et de compréhension que ces activistes là. plus cette école de parti qui existait auparavant d'ailleurs il y a quelques années ah c'est ou un peu plus avant euh, nit nekkoon responsable des jeunes d'un parti politique c'était une fierté. kooku bu daan wax. tu sais que qui sait c'est quoi la politique c'est quoi l'économie c'est comment voilà quelles sont les relations encore son pays partage avec les autres pays loolu qui étaient dans les partis politiques qui occupaient les médias tey c'est les activistes et de la société effectivement xam nga nous sommes nous sommes nous sommes dans une confusion au Sénégal c'est une grande confusion bi nga xam ne nekk euh, les lignes ne sont plus claires maanaam aujourd'hui euh, les partis politiques sax amatuñu benn ligne directrice bu claire bi nga xam ne xam ne kii lii la donc nit yi ils n'ont plus de conviction les gens agissent beaucoup plus par opportunisme et et et, et dans un contexte mais amatul idéologie derrière amatul euh, un dogme amatul une doctrine li yëpp amatul. léegi nag amuñu xalaat. problème bi problème d'opportunisme la ak problème mu jéem a xool comment arriver à mes fins de la manière la plus rapide euh, en en limitant les dégâts collatéraux man dama gis lii aujourd'hui moo nekk léegi la réalité de ce pays là euh, dans d'autres pays ba tey y a des gens qui sont jaloux euh, de leur doctrine tu vois des gens qui qui te disent que je suis la droite droite boobu duma ko génn je ne peux pas avec tel ou parce que bokkuñu principe. conviction à vie. conviction du si génn kii taxaw na la non man je suis man je la gauche je suis un je suis man un gauchiste la nangam laay dund ak nangam. Euh, Sénégal genre suppu kànja moo fi am fii ay gauche ak droite sax vraiment xew fi mën naa ñun sax est-ce que waruñu créer la haut comme que y a y a une gauche y a y un centre est-ce que waruñu créer léegi la haut mooy ñi nga xam ne ñu nekk ci kaw taxaw di xool gars yi di ree mën a mën a andi ay xalaat yu bees pour dire que on a euh, benn benn benn benn boulevard bu ngande bi nga xam ne euh, ci suñu homme politique yi jàpp naa ni les choses vont changer euh, les partis yu bëri nañ gën a dee acteurs yu bëri jàpp naa ni fi ñu jëm Sénégal d'ici peu de temps yenn homme politique yu bëri yoo xam ne sax qui sont sans bagage intellectuel amuñu benn xam-xam jànguñu duñu ñemeeti sax génn di wax parce que le débat sera sera très haut xale yi ils sont très bien informés dañuy gëstu à temps réel les réseaux sociaux ak lépp dafa may nit yi euh, xam-xam ak compréhension des enjeux des na tuuti ku xamul euh, parce que débat yi dafa nar a am on doit débattre sur la politique économique du Sénégal on débattra sur le budget du Sénégal sur la fiscalité sur la monnaie on va débattre sur euh, des questions technologiques et environnementales lii ku amul benn bagage jàngoo dara wax dëgg yàlla tout sax soo fa demee da nga nar am problème a am problème donc beaucoup de gens et ce sera une très bonne chose pour le renouvellement de l'environnement politique en tout cas sénégalais. créer mouvement politique euh, ñu commencé la andil problème xam nañu lu mu la ayobee plus tard mm-hmm. est-ce que yaa ngi ci logique boobu wala loolu tënk ko ci suuf mouvement politique. waaw euh, même parce que un mouvement c'est un parti politique. qui s'appelle le rassemblement pour la vérité ànd si dëgg. donc c'est un parti bi nga xam ne euh, d'ici ay fan yu néew incha de presse pour askan waxtaan ak ñoom ci suñu gis-gis ak suñu xalaat ak suñu bëgg-bëgg ndax gis nañ ni y a beaucoup de choses à faire y a beaucoup de à dire et dañoo gëm ni góomu Sénégal dëgg-dëgg ba léegi parti yi bëri nañ de y a plus de 300 partis mais presque benn parti laalu ko en réalité donc et góom googu nag tant que jéemuñu ko régler euh, pour mën a dem ci yeneen paradigme lépp lu ñu def benn genre grand recommencement lay nekk rek bi nga xam ne vraiment du jariñ bu baax a baax Sénégal gëm nañ nag ni Euh, comme tout pays le Sénégal mu def exception maanaam Sénégal mënul nekk dëkk bi nga xam ne dafa am tradition bu yàgg bu bu dense bu bu riche ba pare am ay ngëm-ngëm yu fi nekk ñu jël ñaar yëpp teg ko de côté ne waruñu si sukkandiku pour mën a tabax Sénégal ñu jàpp lii mooy première incompréhension bi nga xam ne euh, moom lañu tabaxee Sénégal Sénégal dañ ko bëgg tabax ci ay réalité wu jàmbur dañ ko bëgg tabax ci ay institution jàmbur dañ ko bëgg tabax par rapport ak histoire wu jàmbur dañ ko tabax par rapport ak ay institutions yoo xam ne wax dëgg yàlla kii ne parle pas donc tant que nag jéemuñu tëgg. kii ne parle pas non li nga xam ne ñun la pour ñun la par ñun gëw ma ni mën nañ def leen li nga xam ne dina am solo ba mën ñu démarquer avec le reste du monde macha allah. D'accord, j'espère que dans tout votre programme, il n'y aura pas l'élimination des langues étrangères au Sénégal. Non, non, non. On, nous avons déjà des langues, euh, nous on parle presque beaucoup de langues, euh, donc, mais Euh, même bu dee langue yu bëri xéewal la waaye nag nit ki sa làq warlu yem ak dara maanaam nit ki moom mënoo tabax euh, dëkk bëgg ko askan bug ko defaree ci ay làkku jàmbur. Euh, en partie une école de parti. parce que tey même ceux qui se réclament être à la tête de parti politique. ñu ñëpp gis nañ leen le niveau ça ne va pas Sénégal le niveau c'est depuis le sommet jusqu'au bas les gens ont un problème de niveau est-ce que yéen da mettre l'accent maintenant sur la formation du effectivement dañoo gëm ni. par rapport à notre idéologie nous nous sommes euh, porteurs en tout cas d'une idéologie nouvelle qui s'appelle le juste donc le juste milieu est une vision est une philosophie bi nga xam ne qui est bi nga xam ne qui embrasse beaucoup de secteurs de l'activité nous avons notre vision par rapport à beaucoup de choses ñu ko war a defee ak naka la war a demee et lii dafa laaj jàng ndax ñun suñu principe mooy euh, alxuraan daf ñu woo ba ci premier aayam sax bu yàlla wàccee daf ñu woo si jàng iqra la ñu wax donc jàng mooy le fa et l'oméga de l'activité humaine euh, donc man dafa am ki nga xam ne daf ma marqué euh, ndax su ma su ma amee vision politique aujourd'hui tey bu mel nii dafa am kenn ki xam ne moo may yombal ma mën a egg ci vision politique boobu ko mu tudd Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlaxi man moom mooy sama sëriñ donc euh, su ma gisee yi mu doon jàngale ak yi mu doon wax daf may delloo directement ci sama référence politique mooy Seydina Omar Ibn Khattab mais moom dafa am téere bu mu bind tuddee ko tabsatul anam fii na ilm huwa al imam donc moo montre carrément que xam-xam moo war ci lépp xam-xam bu amul wax dëgg yàlla lépp lu nit def c'est voué à l'échec donc nag président bu bu jàng alxuraan tamit. ah waaw loolu man dama jàpp ni devoir la man dama gëm ne Sénégal tànk que amuñu ku gëm yàlla ku ragal yàlla kuy seet diggante ak yàlla ci lépp lu muy def tant que amuñu loolu Sénégal man gëmoon Sénégal dina bouger tant que amuñu président bi nga xam ne waxtu julli dafay jot mu jug lal basangam jàpp julli. Euh, président bi nga xam ne borom lay seet ci lépp lu muy jël comme décision balaa mu koy jël ndax tribunal boobu maanaam borom bi tribunal bi moo ëpp solo te moo gën a am njëriñ ci doomu aadama que quelqu'un bi nga xamee ne ragalu yàlla su ma xoolee suñu dirigeant yi ku mel ne ñoom Macky Sall ak et xam naa ne ragaluñu yàlla xam naa ne faale wu sax yàlla en fait ndax décision yu ñuy jël kuy bàyyi xel borom du ko def te loolu la preuve semaine yi passé dégg naa responsable du parti démocratique bi nga ne si kaw si benn média la toog wax ni politique àdduna rek la yam donc nga xam ni loolu mooy l'idéologie dans laquelle nos acteurs politiques euh, se trouvent ñoom dañoo jàpp ni politique mbiru àdduna la et malheureusement nag il se trompe ndax yàlla nañu laaj lépp ñu nekkee woon ci kaw suuf ak lépp lu ñu doon dogal pour suñu ay askan man jàpp naa ne responsabilité kuy jiite euh, moo gën a fort te moo gën a rëy trop ki xam jiitewul dara ndax naa Seydina Omar ibn Khattab dafa am euh, kenn ci ay doomam ki ñuy wax Abdullah ibn Omar dafa gént Seydina Omar ibn Khattab ginnaaw bu mu mu gis papaam mu laaj ko ne ko bàyyi naka la borom bi def ak yow mu ne ko man de ba ma génnee àdduna ba tey borom bi ngi may mu ngi may xisaab ba may nekk am amirul mu'minin man ba may nekk président maanaam président de l'empire am na benn bëy bu doxoon ci kaw benn pont bi nga xam ne pont bi dafa yàqoon bëy bi surux ba tànkam damm yàlla mu may laaj mbiru bëy boobu imagine toi responsabilité ku jiite. ba ay bëy yu nekk sa biir territoire yàlla di la laaj la si xisaab ay ati at ku mel ni amirul mu'minin Umar ibn Khattab. da tabaxawoon pont bi ba mu normal. ba benn bëy di si mën a dàmm. rawatina rek doomu aadama yi. président yi ñu am nan la ñu def ak nit yi waxuma sax balaa ñu egg ci mala yi nan la ñu def ak nit yu leen yàlla joxoon dénk leen ko donc kenn ku nekk euh, euh, sàmm la sàmm gu nekk yàlla na ko laaj li mu ko dénkoon ci sàmm man jàpp naa suñu président suñu homme politique ak suñu homme public yi bu ñu leen joxoon une bonne formation religieuse. moo xam islamique comme chrétienne ndax ñaari ñooyam euh, ñaari ñooyam ñoo bokk benn fondement c'est le fondement du monothéisme pur euh, su ñu waxee islam encore une fois man su ma wax islam jublu ma ci euh, diine yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu uniquement islam c'est la religion monothéiste de la soumission depuis aadama alayhi salaam ba yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi la même religion donc religion bi nag bu ñu ko jàngalul nit yar ko ci day day tax mu ñeme day dëng day mën a sàcc day jubati ku ñemee moom am jikko yooyu yëpp. yëpp lay am donc il faut donc euh, aller delluwaat kon ci fondamentaux yi te fondamentaux yi mooy mbiru diine man jàpp na ne mooy fondamentaux yi xam ne moo mën a dimbali Sénégal defar ko euh, macha allah.